gouvernement bi jënd waaw nit ñi ñëwaat waaw mooy mooy li tëdd suñu xol mooy daa jëf ji moom du yàgg ba ci ci aan ci aan jot bi nu ndong la ñeel moom noonu noonu la ñeel waaw daaw ni ngeen def daaw ni ngeen def soo fafee te biir gaay te biir gaay bi muy alxuraan soo bind ba dem ba jaaw mo jaaw mooy marché moo xam moo xam njëg bu mu ko mën a jaay moo xam rek lu njëgee seer seer jéem a xam ñu yoroo ko bind alxuraan yàlla xam nga day jàpp nu ñaareel mooy nag ka ka liggéey liggéey bi jëm suñu borom ba noppi nag yow nga nga nga seet liggéey maa nga yóbbu ko xam nga waaw balaa nga wax rek liggéey bi yéen a ngi dégg Adama ak ak ak yéen leen du sàmm Adama ak ma sàmm yéen dégg ki bind alxuraan ba nga fi dem ci marché ba jaay luñ ci gëseer seet day am jégam am yoolu bu ñu am suñu borom mooy bépp liggéey bu ñu liggéey suñu borom ka liggéey liggéey ba ka ko bu ma doon fay milliards sax bu dee maa ngi yiwum ku liggéey yàlla xam nga xam ne nii di am ba nag xam xam loolu moom nga ma li ma defal ku jibee ko dema koy ku jibee xam nga loolu ma defal ku ku jibee ko ma ma fay ma jox la toll ni li ma kii ma koy defal li te waaw jéem am na war a am na moom loolu suñu bopp rek moom. kon xam nga xam nga waa waa Touba Kër Moussa nii. jërëjëf xanaa ba dem daa yóbbu ne woon. kon seen jig laay waaye yàlla nay déwén nag. ak déwén jéeg. Dia dia ujek. Ak dia na ujek si ada ujek no sim tak no sim tak wah. không tu. Kamu mang mungkin semua orang jalan lah yang. Bahan dah semua ini dah rồi Đôi chiếc đôi chiếc biển sao phải xe để mua đi chỗ chỉ được mua mua chỗ này là xe cái mà mà mà này mà nào ổn này nó bao nhiêu thế? Lấy cái bao Then menang aku jual belut. Lalu meni dalam belut lalu ni ada. Ni lalu modal tu kalau ni kon orang tahu sebelum beri ni. Mau mau aku mau lalu macam ni kon susun kalau tahu. Asun kalau tahu lagi. Tegi tegi jadi susun. fa fa day dem ba lay rek yéen am ngeen aw lay lu lu lu lu yéen ñu jëf yi sedd suñu ñu seetaan képp loolu loolu te kii laaj kenn moo gën a jiyee kii laaj ab xolam xam-xam ne ko laaj waaye balaa di jàng xam nga jëf lu baax ñu fay ko jëf lu bon am na fay baax loolu day xol bi lay xam nga ki def da ko def ñu gis la bañ hmm. bu sax ko ngir ak moom loolu moom dafa dafa war a ngi rek gis boo xam ne la muy def ñëpp lu baax la def ko ngir xool ko sax ñi ñi ko def mu def rek képp rek la ci am waaw amuñu ay duma rek de comme seetaan ngay faam waaw góor waaw aji laa ilaaha illallah